ci biir point de presse bi euh, maa ngi koy nuyu de passage Maïmouna Bousso bu Pastef parce que man li may wax rek parce que jigéen ñi aussi je les respecte trop mais bugguma wax ci ñoom mais jàppal ni ñoom ñëpp ci seen ay position c'est normal noonu la ñuy waxee parce que ba ñuy xeex ak yow di ànd ak yow dañoo yaakaari ay poste suba yaakaaruñu dafa Sénégal de ay poste lañu yaakaar poste direction poste ministre poste conseil économique et social loolu la ñuy yaakaar taxaw attaqué wu ñu Mame Mbaye Niang justice le président Macky Sall la ñuy attaqué lu ci yoonu Macky xanaa yéen du ngeen xool wala du ngeen dégg Mame Mbaye moo porte plainte Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo toog diffamé Mame Mbaye Niang ne am na preuve yi te ba léegi génnewul preuve yi lu tax yéen amu leen fit dem ne Ousmane ba ngay wax keroog da nga ne am nga preuve yi ana preuve yi war ñu ñu xool yóbbul preuve yi tribunal arrecté de parler sur Macky Sall bu nu leen jaxase askan bi ak Macky Sall nee naa leen Macky dafa am bilan. Macky Sall dafa def ay réalisation lu ne fàng kenn du ko diex ku dugg biir Sénégal xamna Macky Sall dafa def bilan et puis yalla daf ko dénk muy lan président de la République du Sénégal yeen yalla dénku leen dara ali ni kasira yalla dénku leen ka len la len yalla denk tok ci ay table wo journalistes yi ñu tal sen caméra ngeen yak sen batterie di mbelelelelelelele bu dul jeex tout simplement lolu ngeen fi nekké donc si vous avez di Macky Sall condamnation je crois que vous devez respecter bopp respecté respecter parce que vous ngeen respecté les vous da les institutions respecter la justice respecter les justice bi pères de famille comme vous. amaana a jàng ëpp diplôme donc il faut ngeen respecté ba ngeen ay cadeaux. bi ma ci marqué bi muy picc bu la bëggoon wax Olof picc bu moom Maïmouna Bousso yëkkati na kàddu yooyu ba mu ko yëkkatee ci kan la ko bëggoon ji euh, jëmle ci kilifa ci état bi muy le père de la nation mais ba muy wax muus na xam na ni que lii su ma ko eggalee dig daf may convoqué parce que article quatre-vingt mi ngi fi offense au chef de l'état daf may tëj mu dagg wax bi ba mu ko daggee ba noppi mu taxaw ne xam ngeen ni dégguma wolof ba nga xamee ni déggoo wolof donc waroo woon xamaat li ciy tegu ba mu paree loolu ba pare mu ne wax ji dafa xaw a ñaaw ba nga xamee wax ji dafa xaw a ñaawul pourquoi nga koy yëkkati di ko teg ci euh, borom këru jaamur yow imaginal Maïmouna sa tey nit toog di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci sa kaw borom kër say doom di ko seetaan mettez-vous à la place de ça ci tooñ ngeen nekk ak wax loo xamante ni yoon da koy tere suñ leen jàppee ngeen naan prisonnier politique y a aucun prisonnier politique ici au Sénégal parce que ñi leen dàq wax ñoo fi wax xam charte xam loi am yar am teggin di wax respecter seen institution yoon mosu leen woo si yéen nak su amé ño xamante ne amuñu yar amuñu téggine bëgg yëkëti yëkkati seen wax diko wax yoon daf leen di woo kon donc su ngeen taxawé di nan Macky Sall Macky Sall c'est pour mélanger le peuple avec le président de la République le président de la République Macky Sall gàcce ngalaama il a fait des réalisations sénégalais tégn teg ci seen bëtt ay waxam néwna na nak wax mo leen déssé génn leen ngeen dem ci terrain bi def leen comme Pape Djibril Fall ba ngeen di wax moom ma ngi ca dëkk ba di xool pour nit ñi nañ ko xamee def leen ni Bougane Gueye Dany mi ngi ci bit di xool njàqare yenn village yi lu mu leen mën a jàppale mu jàppale leen ko def leen ni Thierno Alassane Sall ni muy duggee ci ginnaaw dëkk yi waaye toog Ndakaaru point de presse sur point de presse ñenn ñi ay chômeur lañu amuñu xëy amuñu gont

je suis candidat à la présidentielle 2024 C'est très facile je suis candidat à la présidentielle 2024 mais est ce que di ngeen le parrainage est-ce que di ngeen jàll parrainage yàlla parrainage dem len xoli askan bi dem len djima a ci sen parrainage moo gën ëllëg ak ci bir fi lañ len di bloquer ngeen di ñëwaat di sonal nit ñi ay wax yorul jeex mbelelelelele alors que ba ngeen waré dem ci li leen war defu leen li len war niko ko Youssou Ndour waxee ki def li la war am li la war ku deful li la war da nga na nuut ne yatt ni yassar kon yeen wa yewi askan bi da ngeen war a ne nuut ni yatt ni yassar parce que fatta ngeen sénégalais ci ten ay points de presse on en a marre on entend toujours les mêmes choses suñ ci doon dégg sax luy développer Sénégal suñ doon dégg nañu wàññi ceeb bi suñ ci dégg nañu wàññi diwlin suñ ci doon dégg nañu xool bailleurs yi ak locataires yi problème yi am nuñ koy defee suñ doon xool xëyu ndaw yi nañ ci nan lañ ciy indee suñu apport li nga xamante ni premier ministre na keroog campagne bi fële Parcelles Assainies donc su ngeen doon mais ci ay troisième mandat politique politicienne politique politicienne waxu politicienne jarul dóor say doom ñoom ñi fa taxaw ñëpp seen intérêt personnel moo leen fa tax a toog li ñuy naan magum jëmm suy naan lu tàng suukar cee tax ku bëgg akara da ngay leen et arrêter de manipuler les gens tay suñu taxawé un Malick des grand parti je le respecte beaucoup c'est mon grand frère yàgg nañu waxtaan mais tay mom pas bok sax ci coalition parce que limu mu l'AFP, AFP diplomatie bu mu am mom xam nako té tay ji mom nekk candidat lu tax mu Ahmed Euh, mu investir ko ci listam Guédiawaye parce que xam nañ su ko investirul woon Ahmed Aïdara day dem rallier ji Sonko personnellement la ci moom donc calcul mi ngi foofu yeneen ak yeneen yu bëri am na fa un Déthié Fall il était avec Idrissa Seck Déthié Fall soo compté woon quatorze régions Sénégal yi soo fa duggoon ci cinq régions ñu bëri xamuñu ko Déthié Fall kenn xamul Déthié Fall quarante kenn xamu ko da ngay génn fii Europe bi ñu bëri kenn xamu ko xëy na Malick Gakou sax xaw na tane tuuti bi mu nekkee AFP tey Habib Sy ken xamuko bimu nekké mu nekkee PDS lañ ko xamone ken xamuko ko Aïda jéxal na ci carrière politique sama yaay jooju je l'estime je l'adore mais tay c'est normal dans sa position mu waxé noonu parce que Aïda Mbodj tay wax deug yalla waxu politique politicien lay wax Aïda Mbodj ba muy toog fii di tuddee Ablaye Wade fantomas tay Aïda Mbodj su critiquer gestion Macky Sall mais ñom ñoo fi nekkoon jox Macky Sall balaa Macky Sall ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ñoo doon gérer kon donc ñom dañ leen critiquer bañu joggé fi donc ñom ñu dellusiwaat bëgg critiquer donc je crois qu'il y a un sous roche logique à ci coalition parce que ce que di def c'est un plus 1 égale 2, il nag da ngeen jël mënuñu ko multiplier ngeen multiplier, donc ça ne peut pas marcher le peuple sénégalais est adressé La coalition est Askan train dañ leen di nax dañ leen di divertir divertissement est ngeen di euh, rassemblement F24 pourquoi F24 n 23 L'Infidef, F24 mënul def lu raw fu mujj ban faire toujours ci cas, toujours ci wax y fi waxoon li en 2011 il y yaa fi waxoon il y fi waxoon li mais kañ ngeen di dépasser le passé est derrière nous pensons au présent et au futur pour le Sénégal arrêtez vos discours ça n'amène nulle part le Sénégal tay ki leen jiite won do nek toujours ci table bi mi ngi na la dem làqatu ji Ziguinchor parce que xam na ni benen procès mi ngi koy xaar le 16. te xamna ni su demul neena désobéissance civique gaay dañ koy naan ci petite gor gui humiliation bobu lay bañ motax mu ne xaaral ma dem làqatu ji ci samay mbokk ku xamul fu nga jëm da ngay delu wat ci say mbokk mu tok làqatu fofu amana fofu am nay ruxu peut-être su bëggee làqatu dina fa làqatu waye ndakaaru fi amul fu muy làqatu waye na xamna ni que saa ko yoon soxla il n'est pas au-dessus de la loi dañ koy jëli mu taxaw xanaa mo moñu moo ñu daan naan dafa yàkkamti procès dañ ci seetaani vidéo bi tol fekk nit mu ne bëgguma nga ne tay forcé di nga def lol nit bu normal mën na ko def ñu bëgg ko jël banaliser ko di ko politiquer bàyyi nit dee ci ne serait-ce que pour ça dégg naa ñu naan waaw man jeune VP ñaar laa leen laa lañ ñaan nag buñ ko rey. buñ rey kan. ndaw si parce que dañ koy rey. Ah ñu ngi koy wax loo ah ñu ngi koy wax loo mu naan ay xaru laa bëgg ak essayé naa xaru dinañ ko liquider su moytuwul ay mbokkam nag laay waxal bu ñu fexee ba ndaw si ñoom ñoo ko yor. ndax comme nee nañu police koy gar kon mi ngi loxo ci makki mi ngi ci loxo makki sal nañu fexé ba ndaw ci karaw sax buum ko manki muy ben ñaaral buñ ko génne réew mi parce que ay je suis à l'étroit mënuma taxaw sax sama balcon euh, damay dama bëgg a génn réew mi déposé nga plainte di fu mu dem na juge bi jël responsabilité am dégluma ma mhm. bu né classement sans suite mu yam fofu bu nee nañu dem procès ñu dem procès. pare nga pour procès. soo ko procès soo paree soo parewul di nga dem procès. Mhm. kon. yéen a ngi dégg noonu bu mu demee plateau Walfadjri lan la wax moom dafa yàkkamti dem procès si la naan bu leen rey Adji Sarr maa ngi dégg mu naan bu leen ko génnee réew mi. yow yaa taxaw ne bu leen ko bu leen ko génnee réew bi procès am yow yaa daw génn Ziguinchor abi Adji Sarr mi ngi fi mu nekkoon di def ay TikTok am nagisement yow ko dem làqutuñ donc ce qui vous montre que lépp lu muy wax wala di ko anticiper maanaam dafay utiliser toog fii naan bu leen ko rey procès laa yàkkamti toog nga fekk pap Alé nga ne procès rek laa yàkkamti procès laa yàkkamti yow procès ñëw nga ne désobéissance civique chaque fois nga wut contour booy dawee ça waay ku daw nag ba sës ci miir bi da ngay taxaw ce qui reste mooy lan seen dossier boobu du ma ci sore mooy li ma doon wax ba ma ci doon wax boobu dafa fekk pareeguñu dara ñu ngi woon ci la toile ku nekk di ci jëli ba ngeen pare seen audition ñu yóbbu ko chambre criminelle ñu fixé leen date le 16 mai incha allah kon donc lu ma ci mën a xam ne yow mi doon wootee ni que procès nga yàkkamti Adji Sarr ne procès la yàkkamti yaakaar naa ne nag ki bëgg fu mu fanaan ak ki bëgg ku ko wéttali tëjal bunt bi du leen boole kon je crois que yoon la nga wàcce si Ndakaaru le 16 mai nga dem jàkkaarloog Adji Sarr sénégalais yëpp xam. parce dafa baax ci yow dafa baax ci waa Pastef ñu xam ne nag li mu wax dëgg la wala du dëgg yow nga indi sa ay firnde donc loolu la soxla ci yow lenn la soxla parce que 14 morts dee nañu 14 morts yooyu tey suñ doon suñu toppoon loolu muy appel à l' Ousmane Sonko dañ lay condamné yow yaa woote appel à l' instruction génn ci biti ñu rey leen. jàppee ni que yow pour nga doon candidat jaral na la ñu boom ay centaines de sénégalais te sa yaay noonu juraat. yow soo jàppee ni wax jooju doo amel sénégalais yi ak. waaw yow soo jàppee que ñun wax dëgg yàlla ñun amnistie moo tax ñu amel sénégalais yi àq wax dëgg yàlla man je préfère ne pas. donc tu es le seul responsable Bignona ñi fa dee ñaar ñi dee ci bi yow yaa taxaw woote résistance au combat mortel on va rendre le pays ingouvernable on a les moyens tu n'as aucun moyen si tu avais les moyens on n'allait pas te condamner six mois avec sursis et deux cent millions bàyyil wax ci lamine te ngay jëf. ganja